dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllum njàng mekk njàngale mi ak ubbite gi nga xam ne danañu ko ci ama amalaat jàpp nañ ko ñaar fukki fan juróom ci weeru juin ginnaw bi ñu ko njëkkee jàpp mu daal di lajji ni ki démb ca conseil des ministres daal nañuy xamle ne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam la xale yi nga xamante ni ñooy def examen dem di jàngiwaat yéen a kaay gii di l'observateur xëy nag mel ni lu jaaxle ci mbir mi nee na ndax ak lajjite du ci amaata Abdoulaye Ndoye bu kesam sa ak Dambo ci ñoom nag la ñu xam leen nee nañu maanaam lépp loo xamante ni dal na ab jàngalekat état bu Sénégal mooy responsable ci mbir mi yéen a kaay gii de nee na mbir mi li nga xam ne moo ko si jaaxal dafa mel ni du Macky Sall maanaam moo jël ay dogali boppam ndax ba ñu gisee ne Emmanuel Macron njiitu réewum France daan nay wax ne école yi dana ubbi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin ca diwaanu France ki la njiitu réewum Sénégal di Macky Sall waax ñaar fukk fan ak juróom ci weeru maanaam ci biir mi loolee moo jaaxal waa Tribune ñoom dañoo njortu ne lépp loo xamante ni rek France def na ko Sénégal daan na koy def fa yéen kaay gi di source aane bu ngeen bëggee dégg dëgg mooy lu jëm ci wàllum ubbi waat école bii xale yi dem jàngi maanaam ñi nga xam ne ñooy def examen jamono ji soriwul ak sabar gu tas yéen kaay gi du l'observateur mu ñu xamal naan ñu woppi coronavirus ji ak ñi nga xam ne ñoo si am ay jafe-jafe tax na ñu bëri jamono jii maanaam ñoo ngi sikk mu Macky Sall ci lu jëm ci mille milliards yi ndax kenn ku nekk daal di siy jot si ndibal ñi nga xamante ni ñooy waa BTP ak bor bi nga xamante ni état bu Sénégal ameel na leen maanaam mu nekk ay milliards jamono ji ñoom ñoo ngi xaara jëm ci wàllum ndimbal yi nga xamante ni état bu Sénégal waxoon na ne dana ko jëmale ci entreprise yi ba léegi nii maanaam waa entreprise yi ñoom ñoo ngi xaar lu jëm ci personnel soignant bi ñoom tim ñoo ngi xaar seen wàll ci mbir mi yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu Aliou Sall maire bu Guédiawaye mi nga xam ne moo fi corona woon virus maanaam daal nay wéer moom ak jabaram yene a kaay gii di libération ne nag jamono ji woppi coronavirus maa ngi law ci réewum Sénégal waaye dafa mel ni askan wi jamono ji bàyyiwuñ ko xel yéen a kaay gii di réew mi di ko dëggal jël bay wax ne opération daan corona fondation Mbagnick Diop jamono ji ñoom ñoo ngi xaar seen tànk tubay ci ndakaaru ngir jàngoro ji bañ fee laaw moo tax lu toll si junni junni ci ay masque yoo xamante ni daat nañu koy séddale ak ay gel hydroalcoolique ak ay carton saabu yu baree bare maanaam ñi nga xam ne ñooy yor ay daara jox nañu leen seen wàll ci mbir mi marché poisson bu Grand Médina jox nañu leen seen wàll padduwaay jox nañu leen seen wàll ak carte yu baree bari ci ndakaaro fondation Mbagnick Diop fondation la boo xamante ni ëpp na fukki at at mu jot dina jàppale ndaw yi nga xam ne ñooy sàkku liggéey weeru koor gu jot mu dimbale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak di organiser ay donation fondation boobe nag ni ki démb ñoo wàccoon ci mbeddi ndakaaru njaay di jàppale askanu Sénégal ci lu jëm ci ay matukaay yoo xam ne bu ñu ko jëlee woppi coronavirus mën naa dañ ci réew mi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ci ñàkku ndox gi nga xam ne mooy jàba jonge ci réew mi ak askan wi nga xam ne dañoo sonn ba maara day taali bu Sénégal moom dafa noppi ci mbir mi yéen gi sax jàpp ne ak tële la wala état bi moo bëgg seetaan askanu Sénégal yéen a kaay gii délibération mu ñu xamal laan ñu moo ne day ni ki démb ci conseil des ministres bi njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay heurtal Serigne ngir nag mu daal di lijjanti mbir mi yéen a kaay gii de sa xëy yóbbu ñu ci forêt classée bu mbaaw bi maanaam àllub mbaaw bi ak ni nga xam ne maanaam moom lañ koy daggee di ko caxt-caxte ñi nga xam ne ñoom lañ si tuumala mooy Abdou Karim Sall mi ñu dénk wàllum environnement ak Abdoulaye Timbo maire bu Pikine ñoom la ñu tuumal ne ñoo koy caxt-caxte ñoo koy dagg di ko doxalee nu mu leen neexee askan wi nga xam ne ñoo dëkk mbaaw nee nañu Abdou Sall dafa dagg lu toll ci fukk ci ay hectare jox ko Abdoulaye Timbo yéen a kaay gii de la témoin ne bu ngeen bëggee dégg-dëgg maanaam jamono ji Sénégal kumba mu am ndey kumba mu amul ndey moo fi nekk ñenn nag ñooy jóg di saax-saaxe li nga xam ne mooy alalu askan wi maanaam te dara du leen ci fekk yéen a kaay gii du l'Observateur ak Rewmi Quotidien ak L'As ak Sud Quotidien ñu xëy ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum scandale corruption IAAF bi nga xam ne ñoo ngi si tuumal Lamine Diack ak Massata Diack niki dem nag dafa santaane ngir ñu tëj Lamine Diack lu toll si ñeenti ati kaso tëj Masata Diakhaté lu toll si juróomi ati kaso ba pare alamaan leen lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards journal bi nee na niki démb Lamine Diack dañu ko maat maate yàq ko musiba ak dem na ba koy wax ne maanaam santu Diack fu ñu ko dégg ci àdduna bi xel yépp dafay dem ci mbuxum ak ger ak tojaange ki li xoora yéen kay di réew mi mu ñu xamal laan ñu Cheikh Yérim niki démb ginnaaw bi mu jàkkaarloo ak doyen des juges mujj nañu ko bàyyi contrôle judiciaire lañu ko daal di wékk Aïda Mbodj journal bi nee na dañu ko menacé de mort ginnaaw question d' actualité yi nga xamante ni yóbbu na ko assemblée nationale ngir ñu déglu Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllum wér gi yaram geek Mansour Faye mi nga xam ne maanaam moom la ñu dénk lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum séddale dund gi ñaar ñii la Aïda Mbodj waax ñu daal leen di déglu ci assemblée nationale ci ngoon gi si la ñu ko woo téléphone maanaam menacé ko de mort ki ko woo Aïda nee na ko wax na ko bàyyiwul di attaqué Diouf dinaa ko diggale ak yow Aïda Mbodj nag la mi sàkk mooy Abdoulaye Diouf Sarr maanaam leeral 64 milliards yi ñu ko jox Mansour Faye leeral 69 yi ñu ko jox yéen a kaay gi di Dakar Times xëy nag ci kuréel gi di Hezbollah journal bi xëy ne mouvement terroriste la wala organisation religieuse ñi nga xam ne ñooy américains yi dañoo jàpp ne Hezbollah maanaam mouvement terroriste la waaye nag Dakar Times moom la mu jàpp nee na Hezbollah du mouvement terroriste yéen a kaay gi andi na ci ay leeral stade yéen mu ñu xamal lan ñu coupe d'Italie niki démb Kalidou Koulibaly ak ci ñoom Juventus de Turin ak njëkk boo xam ne doomu réewum Sénégal bi di Kalidou Koulibaly daat na kay teg loxo yéen kaay gi yemu fa nee na Real Madrid jamono ji ma ngi ci pression bu mag ndax ni ki suba dafa war a dem ca Valence